faslu yi ab dog la moom da ci wax buñ di xëccoo ci mbirum kii takk na kii am takku ko mel ne góor gi ne jigéen ji sama soxnaa jigéen ji ne ko du ma sa soxna mbaa jigéen ji ne góor gi sama jëkkër kooko ne du sama soxna takkuma ko du ma jëkkëram mbaa ñu joomoo ci can nga ci boppam nu mu toll woon mbaa qualité can nga mbaa sax ñu wóote ci kii ne can nga lii la te wax nag safaan ba yaar yoo xam ne mënuñoo dend ci genn wet lu mel noonu daal lay àtte ci bunt bi bu góor gi ne jigéen ji sama soxnaa dama koo takk jigéen ci weddi ko ne du ma soxnaam mbaa safaan ba jigéen ci wax li góor gi wax la ca des kon benn ñu am ay seere yu wér yu doggu yoo xam ne dañoo fekke woon maye ga fekk lépp na mu demee ñooñu buñ seeree rek mu leer ne kon séy ba am na waaye ba tey nag seeres dégg itam daañu koy doyloo ci lu mel noonu seeres dégg nag mooy mbooloo mu bare bari moo xam ne xamuñ liñ toll wax ne nun daal dégg nañ ba tàyyi ne diw mii takk na diw mii diw mii soxna diw mii la bés noo dañ di ko dégg ci fu ne ak ci mu ne buñ mënta am seere yu wér moo xam seeres jàkkaar loolu la moo xam seeres dégg la nee ñu ko waxe mënuñ ci am lenn kon ka wax ne siqumaa moom dara bu dee góor gaa mu ne du sama soxna baa bu dee jigéen jaa mu ne du sama jëkkër dañ ko wax ne ko demal saw yoon ki wax ne sama jëkkër mbaa sama soxnaa bu taxawaloon benn seere itam lu maandu maandu du tax ñu waatloo koy miim ndax li nga xam ne yaari seere yu maam rek moo ci doy benn seere ak ngiñ du ci doy du jar ñuy waatloo kay weddee kay miim du am benn njariñ su jigéen ne woon góor gi dama takk soxnaam laa góor ga weddi ko soxna si mënta fexe ba taxawal lu may benn seere képp bu seere woon ne góor gi takkoon na ko kon nee nañ la bu fekk ñu ngi dund moom benn seere boobu du am njariñ mu ne waaye nag bu fekkoon ne góor góor gi daa faatu nga xam ne léegi doom rek a des kon jigéen ji bu taxawalee benn seere ba ko seere loon ne góor gee takkoon na ko ñu daal di koy donnuloo ndax ndegam kooka faatu na alal rek a des muy dono bi moom taxawal benn seere ak ngiñ rek day daal di doy waaye nag kenn du ko jox can moom dana doon daal bu waatee ànd ak benn seere boobu waaye can moom deesu ko ko jox ndegam sëy bi saxutoon ca da koo ko dund te léegi faatu na kon can gi mëneesu koo saxal bu ak góor ne jigéen ji sama soxnaa jigéen ci weddi ko ne duma soxnaam bu góor ga ne mën na ma andi ay seere yoo may seereel ne ma takkoon naa ko sama soxnaa te fa wax ne fa la seeree nekk suriwut àttekat ba day wax jigéen ji ne ko kon kat bul jéem a wut jëkkër bul jéem a def nenn lu may xaar ko mu indi seere ya mu wax ne ñoo seere woon dañ la koy may ngay soxnaam te yow nga di ko weddi bu yàlla dogalee góor gi ni mu ko waxee mu defee ko noonu indi seere yi ñu seere ne may nañ ko jigéen ji yoon daal jàpp ne kon wax na dëgg kii soxnaam la su ne may leen ma mu indi ay seere ñu seere ne kii sama soxnaa takkoon naa ko àttekat bi daal koy may ne ko demal indi seere ya mu dem dem mënta indi ay seere bu mujj àttekat bi ne ko yow daal ci dëgg-dëgg da ngaa bëgg soxna waaye mën laa am ay seere kon nag àtte naa ne mën laa taxawal ay seere gannaaw wala ne su fexe woon ba indiwaat yeneen seere itam kenn du ko déglooti la àttekat ba waxam ne ko rek amoo ay seere amoo ay seere ca lay dogu rek du ca deltu gannaaw bu jigéen ne woon diw mii mooy sama jëkkër diw moomee muy góor googee weddi ko jigéen ñi daal di indi ay seere yu day sëkk ba àttekat bi àtteel na ko sa jëkkër sañu koo bañ mu ne kon kookee ne woon du ma jëkkëram du tax ñu wax ko ne ko léegi kat weddi gi nga weddi woon ak fase la de su ko jàpp fase mën na ko jàppe rek ne soxnaam la bu wér a wér ci yoon da ko dundal di ca def la ca war lu may nag weddi gi mu doon weddi ne du ma jëkkëram du sama soxna fase la ci jublu woon bu fekkee ne weddi googee fase la ci jublu woon moom kon tase lañ koy jàppee bu jigéen ne woon góor gii mooy sama jëkkër góor ga weddi ko jigéen di indi ay seere yu wér ci zahir moom ba àttekat bi àtte ne jigéen ji wax na dëgg góor gi jëkkërama mu ne góor googee su ko wóoree ne jigéen ji daa bari pexe rek taxawal ay seere waaye ci dëgg-dëgg mësta takk kii benn benn benn yoon soxna see njublam neexal seere yi bañ seere ne soxnaama àttekat bi àtte ko rek waaye ci dëgg-dëgg moom du soxnaam na daal taxaw tem rek ci ñu fasal ko ko may ko ko mu daal doon soxnaam bu wér a wér mu ne bu fekkoon ne ñaari góor dañoo taxaw di xëccoo jenn jigéen kenn ku ci ne wax ne sama soxnaa taxawal ay seere yu ko seereel ne moom lañ ko mayoon muy soxnaam waaye amuñu jenn firnde di mën a dàqe kenn ka bàyyi kenn ka dañ ko yemaleeg jigéen jooje nga xam ne yaari kilifa da ko mayoon jëkkër mu amee yaari jëkkër te mënuñu woon a xam kan lañ jëkk may ak kan lañ mujj a may ñu ne woon ñoom ñaar ñëpp la ñuy dindi seenub sëy mooy desul bàyyi sëy kenn ci ñoom ñaar fii it noonu lay mel dañuy wax ñaari góor yi ne leen yéen ñëpp dem leen jigéen ji du ci soxna kenn ci yéen ñaar bu ñu andi woon ay dat nag te dat ya wuute moom ñu topp boroom dat ba jiitu waaye day aajowoo kenn ku ci ne andi ab dat waaye bu kenn ki andi woon dat kenn ka bañ a andi dat moom du am njëriñ bu jigéen ji waxoon na it kii lañ ma mayoon waaye may ñu ma woon kii it du tax ñu faale loola kenn ka gën a maandule ay seere itam du tax ñu faale loola ba sax kenn ka jot a wéet ak jigéen ja te kenn ka jotut a wéet ak moom it du tax ñu daayoo ko kookee wéet ak moom dañuy bind rek sëy ba ñoom ñaar ñëpp ñu bokk ca yam góor ak jigéen yoo xam ne ay doxandéem rek lañu fa ca barab boobee bu ñu nee jëkkër ak jabar lañu góor gi ne kii sama soxnaa jigéen ji ne kii sama jëkkër a dañuy jàpp ca loola rek bi ca kenn faatu woon tam tey dund daal di koy doon bu jigéen ne góor gi sama jëkkër a góor googee ne wax na dëgg sama soxnaa seen yaari waajur saxal loola maanaam waajuru ku góor ka nangu lañu wax waajuru ku jigéen ka it nangu lañu wax dañuy jàpp ne kon wax nañ dëgg jëkkër ak jabar lañu ku ca njëkk faatu rek ka ca des doon ko ñaar ñoo xam ne ca dëkk ba lañ dëkk mbaa kenn ka moom foofa lañ ko xamee mu dëkk fa góor ga ne kii sama soxnaa jigéen ji ne waaw soxnaam laa waaye gis nga ne foofu lañ dëkk mbaa kenn ka fa la dëkk te kenn mës sa xam sëy bu dox seen diggante mu ne loolu nag bu kenn ko faatoo ndax daañu nangu lañu waxoon ba kay dund doon ko faatu am dee su ko nangu foofu am na ak wute lool am na ñu ne bu nit demoon ba toll ci sukuraat daal di wax ne am naa soxna de ca dëkk sàngam daal di koy tudd su faatoo rek ba soxna sa ne sama wàll ci dono bi laay jël si ñu ne ko sañ nga ko ci wax ñooñu ba tey jigéen bu toll woon ci sukuraat wax ne am naa jëkkër de gi nekk ca barab sàngam naka mu faatu kookee dikk ne sama soxnaa woon ñu ne kon da koy doon rek ñu ne ko wax nga dëgg loolu la ñeen ñu wax waaye am ñu ne loolu daal doyut loolu daal du tax kenn doon ka wax loolee jëkkër dëgg jabar ji bu ñu xëccoo ci na can nga toll woon lañu waxante woon ci can li ñu wax sax wenn xeet la ni ki ñoom ñëpp xaalis la ñu wax waaye nag tolluwaay ba la ñu wute mu ne bu dee ci xaalis CFA kee wax fanweeri junni kee wax juróom fukki junni mbaa ñu wutee ci qualité ba ni ki ñoom ñëpp xaalis la ñu wax waaye kee daa wax fanweeri junni ci CFA kee wax fanweeri junni ci euro loolu kon lim bi tolloo na waaye qualité bu xaalis ba moo wuute lu mel nii nga xam ne dañoo wuute ci tolluwaay can nga mbaa ci qualité ba moom bu fekkee ne wéet amagut dañuy seet koo ci xam la nga wax moom lañ ëpp def foofee ngeen nekk soo mënee waat boole ca ñu ne la yaa am dëgg moom mi wax nag li ëpp am ca barab boobee bu fekkee dafa ragal a waat kon ka ca des mooy daal di waat la mu wax rek ñu ne ko yaa wax dëgg bu fekkee nag buñ seetloo ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk la nga wax dana di am foofee xam ne ku ci ne waxam jaadu na mbaa amu ci kenn ku wax lu jaadu ñoo bokk àtte dañ wax ne nañ bokk waat kenn ku ne waat dëgëral la nga wax weddi la sa moroom wax buñ bokkee waat ñu dindi sëy bi buñ bokkee ragal a waat naka noonu ñu dindi sëy bi bu kenn ka ñemee waat kenn ka ragal a waat nag ñu jox dëgg ga ka ñemee waat waaye bul fàtte ne lii muy wax nii ak maye dong moo dox seen diggante wéet amagut te it nag fuñ si war a bokkee waat rek jigéen ja muy soxna sa mooy njëkk a waat góor ga mooy mujj a waat wuute ca xeetu can ga moom dafa diis lool mel ne kee wax ne can gi nangam la ci xaalis kee wax ne can gi ab oto la mbaa aw nag la mbaa aw fas la nga xam ne moom daal bokkuñu xeer wuñu wax sax far moom lañ koo diisal lool bu fekkee ne ak may rek dox seen diggante jotewuñ dara dara bu kenn ku mënta fekk si moroom ma ca la mu wax faw rek ñu dindi sëy ba luñ seet ba xam kenn kaa wax lu jaadu am déet mbaa nangam ak nangam moom daal ndegam noonu lañ juyoo ca xeetu can nga te ak may dong moo dox seen diggante bu kenn ko mënee fekk moroom ma ci la mu wax baax na bu kenn mënta fekk moroom ma nag ñu dindi sëy ba mu deñ lee nga weesu woon mooy ba xëccoo ba amee te wéet amagut muy wax nag léegi bu wéet amee ba tey day teqale bañ xëccoo ca tolluwaayu can nga ak ca qualité ba bi yam ak bañ xëccoo ca xeetu can nga ci boppam li wax nii mooy wéet am na ba noppi ñu xëccoo nag ci can nga lu mu toll woon mbaa qualité ba ndegam wéet am na jëkkër ji bu mënee waat moom la ñuy jàpp ay waxam doon si sax la mu wax jaaduwut tey bu fekkoon ne wéet amut waaye nag góor gi daa fase mbaa kenn ci ñoom ñaar faatu ba tey kon jëkkër ji ndegam faatuwut su mënee waat la mu wax boole ci rek doonte jaaduwut moom la ñuy fekk si bu fekkee ne dafa faatu itam moom jëkkër ji ay donoom ñooy taxaw taxawaayam bu mënee waat rek ñu daal leen di moomale dëgg ga nga seetlu foofu ne wéet amut waaye su passé amee wala faatu am rek ba tey jëkkër ji moom bu mënee waat moom la ñuy jox dëgg ga ñetti anam yi nga wax ne jëkkër ji bu mënee waat moom moom dëgg ga nga wax ne bu ñu ko nee waatal mu ragal a waat nag kon soxna su bëyee dund mooy waat la mu waxoon ñu ne ko yaa am dëgg bu fekkee dund it ay donoom ñooy taxaw taxawaayam daal di waat ñu jox leen dëggu soxna sa faatu bu ñu wutee ci xeetu can ga waaye nag daa fekk ñu wéet ba àggal xam ne ba àggal binaa yi ci gannaaw wéet la man ne gannaaw ba ñu wéetee soxna si wax ne kër sàngam la ma waxoon ne mooy can gi góor ga ne ko nangam ci xaalis laa waxoon kon dañoo xëccoo ca xeetu can ga ndax kee kër la wax kee moom xeetu xaalis la wax mu ne ko ndegam wéet am na ba noppi dañuy bàyyi sëy ba yooyu kenn du ko tas te ñu seet nag can nga yell ci jigéen ji demee nii buñ seetee can nga yell ci jigéen ji te ëpput lam ne woon moom lañ ma war a jox kon ñu jox ko ko waaye nag bu ko ëppee moom deesu ko ko jox ndax lam nu xëccoo wax ne moom lañ ma war a jox kenn du ko jox lu ëpp loola mel ne jigéen ji fa mu nekk moom alali jur la ñuy jëflantee mu ne woon moom jigéen ji aw nag la ma waxoon ne moom la may cane góor gi ne ko fanweeri junni laa waxoon ne moom laa lay cane ñoo ne kon ndegam wéet nañu sëy bi kenn du ko dindi waaye nag nañ seet fan gu jaadu ci jigéen jii nga xam ne mooy canaktam sadaaqul misli lu mu war a toll bu fekkee ne tolloo naag li mu wax mbaa mu yées ko moom lañ koy jox waaye bu ko ëppee nag dañ koy jox rek li mu wax te bañ koy jox lu ko ëpp mel ne bi mu nee moom aw nag la ma góor gi waxoon ñu seet nag lañuy cane ay moroomam foofee muy aw nag akub gàtt kon fanuk kem moo ëpp lim ne moom la ko góor gi waxoon kon dañu bàyyi sëy ba yooyu dañ jox ko aw nag rek yem ca kenn ko jox aw nag akub gàtt ndax la mu doon laaj wax ne mënu koo ñàkk te jàpp na ne moom mooy àqam dëgg-dëgg aw nag dong la kon kenn du ko ca dollil ab gàtt jëkkër ji itam kat buñ ko nee joxeel canuk kem ñu seet nag canuk kem mu yées li waxoon ne moom la waxoon jigéen ji mel ne bi mu nee fanweeri junni laa ko waxoon ne ko moom laa lay jox ñu seet nag li ñuy cane ay moroomam muy ñaar fukki junne juróom nga xam ne kon li waxoon muy fanweer moo ëpp canuk kem dañ koy wax ne ko doo yem ci joxe ñaar fukki juróom da ngay dem ba joxe fanweer ndax yow fanweer nga dogu woon ne yaa ko ko waxoon kenn du la wàññil la nga waxaloon sa bopp kon seet nga foofu jigéen jëg góor gi la ñu jëflante ñoom day safaanoo lool la ñu war a jox jigéen ja bu naree ëpp la mu waxoon ñu jox ko la mu waxoon dong jëkkër ji itam canuk kem buñ ko seetee mu nar a yées li mu ne woon moom la war a joxe ñu ne ko joxe la nga waxoon doo joxe lu yées loola jëkkër ji bu ne woon bi ñu ma may soxna dañ koo defoon ni kaafu tafu yi du may bañ a wax genn can may ma rek noonu jigéen ji ne ko dañoo waxoon kat can gi nangam lay toll mu ne kon dañuy seet bu fekkee foofa lañ aada woo def mooy may rek te bañ a wax can ga nuñ toll mbaa boog léeg-léeg sax ñu wax can rek waaye maye waxuñu can moo gën a bari wala sax yaar yëpp fa yam maye wax can ak maye te waxuñu can ñoo fa yemoo képp su demee noonu jëkkër ji bu mënee waat la mu wax ñu ne ko yaa am dëgg ñu ne ko yaa am dëgg te fekk wéet am na ba noppi faaw mu tudd lu mat canuk moroomum jigéen ja ndax wéet gaa tax bu fekkoon ne nag wéet amut kon bu fase woon itam mbaa mu faatu moom jëkkër ji du tax kenn di ci war mbaa dara ndax dañ ne woon ni kaaxu taf yi du moom bu dóor ga fasee kenn du ko joxeloo kenn wàllu can ndax tuddutoon dara bu faatu amee it noonu doon nan tex dana am waaye can moom du am su ragalee waat nag moom jëkkër ji kon kilifa jigéen ja nañu waat ne waxoon nañ can sàngam ci daal topp li boobee ñu waxoon ba jëkkër ji joxe ko te du ko sañ a bañ bu fekkoon na it barab booba lañ fa baaxoo def te moom rek la ñu def mooy bu ñu mayee faaw ñu tudd can duñ may mukk benn yoon te waxuñu ne can ngay toll kon bu góor gi nee dañ maa mayoon te tudduñu can soxna sa ne waxoon nañ can sàngam kon soxna sa bu mënee waat boole ca ñu ne ko yaa am dëgg sëy ba dal di sax ca noonu mooy góor gi mooy góor gi joxe loolee ñu wax ne mooy can ga foo fi déggee ñu ne kee day waat mbaa kee day waat day fekk mu bañ a doon gone mbaa ku mënta yéeg boppam bu dee gone mbaa ku mënta yéeg boppam kilifaam moo koy waatal waaye moom ci boppam du sañ a waat du mën a lijjanti mbirum boppam kilifaam rek moo koy waatal moo koy lijjantil lii moom jamono yi jaam amee la mënoon a am mooy jigéen ji jëkkër ji koy takk daa fekk mu moom ndeyam ak baayam ñu di ay jaamam dañ ko mayee ba noppi nag ñu xëccoo jigéen ji ne ko dama ne woon sama ndey nga may gooreelal muy can gi ndax man moo ma gënal góor gi ne ko man sa baay laa la waxoon ne la moom laa lay gooreelal muy can gi ba nga nangu woon loolu te ñu xëccoo ñoom ñaar nekkoon jigéen ji mooy njëkk a waat ne man sama yaay laa waxoon nga gooreelal ma ko su fekkee waat na ñu ne kon jëkkër ji yow itam waatal ne baay bi nga waxoon waxoo woon yaayam su waatee moom itam loolu kon ñoom ñaar ñëpp ko ñu waat lañ wax kon ndegam ak may rek moo dox seen diggante jotuñoo wéet dañuy dindi sëy bi li ci xaw a métti ci góor gi nag mooy buñ dindee sëy bi itam du tee bàyyi jigéen ji moom dal nay gore ndax li góor gi wax ne moom laa la goreelal daa wax soxna si ne ko sa baay laa la goreelal muy sa can tudd ba mu tudd goreelal ga day tax faaw baay ba moom gore te gis nga ne moom teewu ko ñàkk soxnaam ndax yoon tas na sëy bi ngir ne wéet amagutoon bu ñu ne jigéen ji waatal ne sa yaay nga waxoon ne mooy doon can gi mu ragal a waat ñu ne góor gi waatal ne waxoo woon yaayam baayam nga waxoon moom itam mu ragal a waat kon ñoom ñaar ñoo bokk ragal a waat ate bi benn lay doon dañuy dindi sëy bi ndax wéet amagut dara amut te lu tee baay bi moom gore na ba noppi rek ndax góor gi moom nee na baayam la ko goree la loon bi jigéen ji waatee ne man sama ndey laa waxoon nga goreelal ma ko muy can gi góor gi ne ko man sa baay laa waxoon ne moom laa lay goreelal muy can gi soxna si moom dal nay waat ne sama yaay laa waxoon ñu ne jëkkër ji yow it waatal ne baayam nga ko waxoon waxoo ko woon yaayam moom nag mu ragal la waat loolu xam nga bu ragalee waat loolu moom day mel ne kon jigéen ji lam waxay dëgg jigéen ji day jàpp ne ndeyam gore na baayam gore na baayam moom gore gi mu gore yow mën naa xam li ko waral mooy góor gi ci boppam ne na moom la ko defaloon can ba mu gore yaay ji tam li ko tax a gore rek mooy moom la soxna si wax ñu moom laa waxoon ñu defal ma ko can te góor gi mënta waat weddi loolu ñàkk ñu ñàkk mën a waat weddi loolu moo tax kon dañu jàpp ne jigéen ji ndeyam ak baayam ñoom ñëpp bokk nañ gore te moom moom seen kilifteef waaye nag jëmmi can gi ci boppam ba léegi yaay ji lañ koy jàppee nga xam ne bu fekkoon ne góor ji fase woon na ci njëkk weddi am ba ñu war koo delloo genn wàllu can gi kon genn wàllu xayma yi yaay ja lañ koy delloo des ko delloo genn wàllu xayma yi baay ba su fekkoon ne nag jigéen ci moom la mu wax ne saa yaay laa waxoon mënu ko waat benn yoon te nag góor gi moom mën naa waat ne man sa baay laa la waxoon ne la moom lay defal can dégam góor gi rek mën a waat la mu wax ci lañ koy fekk si muy bàyyi jigéen de mooy doon can nga yaay ji moom doon ab jaam ba tey man ngaa jàpp foofu ne fu ñu fi waxee ak gore rek moo xam ca baay ba moo xam ci yaay ja kilifteef ga moom ca jigéen ja lay dellu mooy jigéen ja mooy moom kilifteef ga li mu àtte nii nag mooy bu fekkoon ne wéet amagut ak may rek moo dox seen diggante bu fekkoon ne nag bi ñu xëccoo daa fekk wéet am ba noppi kon sëy bi kenn du ko dindi benn yoon waaye nag jëkkër ji da nga wéet am na moom la ñu wax ne ko boo waatee rek ñu jox la dëgg su fekkee ragal naa waat jigéen ji dal di waat ndeyam ak baay bi yëpp dal di bokk gore bu jëkkër ji ragalee waat soxna si itam ragale waat kon baay ba rek mooy gore mel ne mooy can nga yaay ja moom doon ab jaam ba tey ba ñu taalif téer yi moom daa fekk wàllum jaam xew lool wuuteeg suñ jamono jii moo tax rek ngay àgg ci ay masala yu bari bari yoo xam ne mbirum jaam la ci àtte ndax ñoom daa fekk boobu ñuy àtte woo sharia ci wet gu ne bu jëkkër ak jabar xëccoo ci jigéen ji ne ko li nga ma waroon a jox ci alali sëy ji joxoo ma ko te waxtu joxe wi jot na jëkkër ji ne ko joxoon naa la ko ba noppi mu ne kon su fekkee ne yéet amagut ak may rek moo dox seen diggante jigéen ji muy soxna si su mënee waat ñu ne ko wax nga dëgg joxagu la li mu la war a jox ci can gi dal di wax góor gi mu jox ko ko bu dee jigéen joo xam ne mën naa wéeg boppam mooy waatal boppam su fekkee nag day gone mbaa muy ko mënta wéeg boppam kilifaam moo koy waatal te nee nañu kilifaam nga ko war a waatal su ragaloon a waat bañ xañ dëgg jigéen ja mooy fay jigéen ja alal jooju ndax moom ma waroon a waat te ragal naa waat kon nag dañ naroon a xañ jigéen ja moo koy fay kon loolu mooy àtte ñu xëccoo ci noonu te wéet amagut gannaaw bu wéet amee ba noppi nag ñu xëccoo ci nii jëkkër ji bu mënee waat moom la ñuy jox dëgg ci kaw nag ñeenti sart wala ñu koy jox dëgg xoolal ñeenti sart yi bu njëkk bi mooy lañ aadaal foofu mooy jëkkër ji day wéet ak soxnaam ba àggal door koo jox can ga lay tax sart ba bañu xët mooy foofa aadaal bala ñoo joxe can gi wéet ba noppi dañ koy door a joxe mbaa boo ko far amul jenn aada ju fa xew waaye bu fekkee ne moom la fa xew mooy balaa kenn wéetu soxnaam da koy jox can nga ba àggal gannaaw bi wéet amee nag soxna si di ko laaj can gi mu ne ko jox naa la ko duñ nangu ay waxam ci yooyu jamono ndax boobu sart bu xëtt foofu ñaareel bi soxna sa bañ yore lu mu ne ak tayle la bu ko jëkkër joxoon ne ko téye ko baa jox la can gi bu soxna si yoree matériel boo xam ne daa wax ne moo ma ko tayle woon ne ma da nga koy téye baa jox la can gi dama la joxee can gi jëlaat sama yëf te ba tey soxna si mi ngi ak tay la ga kon bu jëkkër ji ne jox naa ko liw may laaj ba noppi itam duñu nangu ay waxam moom jëkkër ja boobu sart kon xëtt na ñetteel mooy can nga bañ a doon lu ñu bind ci kayit te soxna si yore kayit wa fekk dañ ko bindoon ci kayit te ba tey soxna si mi nga ak kayit wa li soxna si wax ne joxaguñ ma can gi moom la ñuy gëm ndax dañuy jàpp ne bu joxe woon can gi dañ laaj kayit wa mbaa ñu def ci mandarga moo ne ne fay nañ li bindoon fii ci kayit yi di ko ñeenteel nag mooy bi jëkkër ji wax naa liw may laaj jox naa ko noppi mu boole ca wax ne ba wéetugut ak moom laa ko ko joxoon waaye bu ne gannaaw bi ñu wéetee ba noppi laa ko ko jox ko it duñ nangu ay waxam ñeent sart yi bu ci benn xëttee rek jigéen ja bu mënee waat moom la ñuy jox dëgg jëkkër ak jabar bu ñu xëccoo ci bagage yu nekk ci seen néeg mbaa nga ne ci kër ga góor gi wax ne moo ko moom jigéen di wax ne moo ko moom ne kon dañuy seet su fekkee loolu day loo xam ne jigéen rek moo ko baaxoo moom góor moom daawu ko moom benn yoon jigéen rek moo ko baaxoo moom kon jigéen ja bu mënee waat dina ko wax nga dëgg yaa ko moom waaye dañuy sart nag loolee mu wax ne moo ko moom te jigéen rek moo ko baaxoo yore bañ a doon loo xam ne jëkkëram da koo denc ci gaalam mbaa ci feneen na fekk li muy wax ne moo ko moom moom jigéen ji mu yore ko mbaa kenn ci ñoom ñaar bañ ko yore waaye bu fekkee góor gaa ko yore te wax ne maa ko moom kon bu góor ga mënee waat ñu ne ko wax nga dëgg te it jigéen ji bañ a doon ku néew doole moom njaboot ga mbokk ba nga xam ne lii wax ne moo ko moom ku ko seet mu jaadu ne moo ko moom waaye bu fekkee dañoo xam ci moom ak néew doole mook ñam bàyyikul ba nga xam ne dërëfta nangu ne moo ko moom ba tey kon bu jëkkër jëne maa ko moom te mën a waat ñu fekk si ko bu fekkee nag la ñuy xëccoo day loo xam ne góor a ko daan moom jigéen daawu ko moom benn yoon wala muy loo xam ne góor daana ko moom jigéen daana ko moom bu ci ñett sart dajee bu góor ga mënee waat ñu ne ko yaa ko moom sart bu njëkk bi mooy loolee ñuy xëccoo ba mu doon loo xam ne jigéen yi moo ko denc tëj ko ci gaalam mbaa ci beneen dencukaay ba noppi la ñuy xëccoo na nekk loo xam ne moom góor ji wax ne moo ko moom moo ko yore mbaa boog kenn ci ñoom ñaar yorewu ko waaye bu fekkee ne jigéen ja moo ko yoree bu wër denc ko bu wër moom boobu sart xëtt na ñaar bi mooy moom góor gi bañ a doon ku néew doole mook ñoom bokkal ba nga xam ne bu nee lii maa ko moom itam duñ mën a jàpp ne daal loolu mën na koo moom ñetteel bu mooy loolee ñu xëccoo bañ a doon loo xam ne mook yëri jigéen ja moomal boppam ñëpp xam ko dañoo bokk lool nuroo lool bay benn nga xam ne xel moom du nangu lu may boole ko ci yëri jigéen ja ak bagage jigéen ja kon ñett sart yi bu ca dajee mooy tax lu góor gi xëccoon te jigéen ja ñu ne góor gi yaa ko moom boo mënee waat boole bu benn ci sart yu xëttee rek jigéen ja bu mënee waat ñu ne ko wax nga dëgg yaa moom loolee fenn fu ne jigéen ñi day am lu ñu aadawoo di def mel ne fii ngay gis jigéen ñi di wut gerte di ko xolli di ca wut lu ñu am ñoom nag daa bokkoon seen aada wut wuteen di ko ëcc ngir ñu mën koo ràbb ay yére mu ne nag bu fekkee jigéen ji dafa am këcc lu nekk fa moom mu wax ne maa ko moom ñu ne ko boo mënee waat rek ñu ne la yaa ko moom jëkkër ji bëggee jàpp itam loolu moom jigéen moo baaxoo def loolu kon jigéen ji mu ne war rek ñu ne ko yaa ko moom lu may nag jëkkër ji dafa saxal ci lu wër-wër ne moo fi andi woon wërtéel wa ba ñu ko ëccagut nga xam ne nga xam ne kon jigéen ji moom muy soxnaam si dafa ëcc wërtéel wa waaye jël wërtéel yi ci boppam góor jee ko fi andi woon kon ñu ne leen yéen a ko bokk kenn ku ci ne nañ seet lam ci war a am góor gi moo moom cosaanu wërtéel yi ba ñu ko ëccagut soxna si moo ko ëcc nañ seet kenn ku ne lam ci war a am mu am ko ca waaye itam nee nañu foofu kat bu fekkoon ne jëkkër ji daa bokk ci ràbb kat ci séri yi nga xam day wuti wërtéen di ko defar ak ràbb kon mooy daal di am dëgg bu mënee waat ndax lépp loo xam ne ñoom ñëpp ñoo koy jëfandikoo góor ga la ñuy ëppal doole ci googa wet bu jigéen ji amee lum ràbb ba mu doon ay yére mu wax ne ni ma ko ràbbee noonu laa ko moomee jëkkër ji ne ma ko ràbb waaye wërtéen yi nga xam ne moom la ko ràbbee moom maa ko fi andi woon kon jigéen ji ràbb gi wér na ne moo ko def bu mënee taxawal ay seere yu seere ne ba tey wërtéen ba mu ko ràbbee moo ko moom kon mooy moom yaar yëpp waaye nag bu mënta indi jenn firnde ji wane ne ba tey moo moomoon wërtéen wa te góor gi wax ne man maa andi woon wërtéen wa kon dañuy jàpp ne góor gi moo moom loolee jigéen ji ràbb mu war a fay nag soxnaam soosu tayut ràbb gi mu ràbb loolee day mel ne rek jëkkër gi dafa indi wërtéen soxna si ràbb ko ba àggal mu war koo fay nag ku ràbboon lu mel noonee maali nag yàlla ko yàlla gërëm mu àttee noonu waaye ibnu xaasim moom day wax ne li jigéen ji ràbb dañuy jàpp ne moo ko moom jëkkër ji wax ne kay maa andi woon wëttéen wa moo war a taxawal ay seere yu seere ne ci dëgg-dëgg wax na dëgg moo andi woon wëttéen wa bu taxawalee ay seere daal di bokk ak soxnaam si loolee mu ràbb ci kaw kenn ku ne lu tolloog lay sa àq jigéen ji àqam mooy lu tolloog ràbb gam ràbb sorwoowee jëkkër ji it àqam mooy rek jëm wëttéen wa na meloon dañu ko ràbbagut fu xaymaam toll bu góor gi jëndee loo xam ne jigéen na ko baaxoo moom mel na xeetu takkaay soxnaam wax ne man la ko jëndal te it maa ko jox njëg gi maa ko jox sama njëg di ma ko jëndaloo jëkkër jëne sama alali bopp laa ko jënde te sama bopp it laa ko jëndal ñu ne kon jëkkër ji nawaat loolu loolu mu wax ne alali bopp mu la jëndee takkaay li te bopp mu la ko jëndal nawaat bu waatee rek ñu jàpp ne moo am dëgg su ragalee waat nag soxnaam si daal di waat ci li waxoon ñu jàpp ne moo moom takkaay loolee kal xaq si mel ne safaan ba kal xaq si mooy soxna si bu jëndee loo xam ne góor a ko daan moom ci góor la gën a yella mel ne xeetu ngannaay jëkkëram wax ne moo ko jox njëg di ko ko jëndloo soxna si ne sama alali bopp laa ko jëndee saa bopp laa ko jëndal ñu ne ko waatal loolu nga wax su waatee rek ne sama alali bopp laa ko jëndee te saa bopp laa ko jëndal ñu ne ko wax nga dëgg baragalee waat nag jëkkër ja moom waat la mu wax daal di fab ngànnaay loolee